rahmatan lilalamin sayidina wa habibina wa qudwatina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi xurri lmayamin وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام وأقوات المشاهدات أيها الأحبة في الله السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum marratan uxra fi barnaamijikum diine ji mbokk yi seetaan ci biir réew mi ak bitim réew gannaaw bi ñu musloo yàlla ci seytaane sant ko moom borom bi tabaraka wa taala julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd ci mboolem nuyoo di ñaan yàlla nuyoo limu mu ëmb ci jàmm ak yërmandeeg barke yal na ñu ko yàlla boole defal fa tabarakallahu fas yéene waxtaanee tomb bu am solo ci ñu génn ne Ramadan fa tabarakallahu shahru muallim wa maatatu safar ila rabbil alamin wa maatatu safar ila aljanna weeru koor jàngalekat la sunu borom ñi kon rama li tax yàlla indi ko fi jullit yi dañ ko war a xam mooy lan mooy pour mu jàngale shahru muallim dafa ñëw pour jàngal nit ñi jikko yu rafet dafa ñëw pour defar bakkan waaye dafa ñëw pour defar xol waaye dafa ñëw pour defar cëri doomu aadama kon li ko tax a jóg mooy ñëw pour jàngale mbaax pour defaraat nit ba nit bu ëllëgee mu mën a dëkk ak yàlla ndax yàlla ku nar a dëkk ak moom ëllëg aljana foog nga deferu te deferu nag fii lañuy ñuy deferoo ci àdduna balaa àllaaxira moo tax yàlla yónni yonent yi pour ñu ñëw defar jikko yi defar àdduna ba bu ëllëgee buñ delluwaatee aljana mën a dëkk ak yàlla yàlla mën a xajoog ñun ndax aljina ku tilim amu fa palaas moo tax foog ñu defaru bala ñoo dem yàlla wax na ci alquran ni suma aljina ji kol butilim du fi dugg ku setul xol du fi dugg borom xol bu bon du dugg aljana wa nasaxna maa fi sudurihim min qillin loolu la yàlla wax waaw kuy bañ sa mbokk bu amee kenn ku la tere nelaw ci àdduna bii nga teg ko bët bët bañ ko te dara taxul lu dul àddunay kese jikko ju bon jooju fekk génnut ci yow bàyyil xel ne amaguloo palaas ci biir aljana aljana bañante amu moom it mu muuñ li xar kanam yi déw yal nañ yàlla dimbale kon weeru koor jàngalekat la nga ne ma kuy jàngale foog nga am téere foog nga am bukk kon ramadaan lan mooy téeréem ma ne la wal qur'aanu kitaabuhu ramadaan alqur'aan mooy téeréem téere bi ramadaan di sukkandiku pour joxe lesin pour jàngal nit ñi mbaax jàngal leen jikko yu rafet téere bi muy sukkandiku pour jàngale mooy alqur'aanul karim mooy téeréem moo tax yàlla bi muy wàcce alquran sax ci biir ramadan la ko wàccee shahru ramadana alladi unsila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan kon nag fa man shahida minkum shahra yàlla ne fal yasumhu kon alquran mooy téere bi muy jàngale alquran mooy constitutionu jullit ñi ñi gëm yàlla alquran mooy seen constitution moo tax ramadan bi mu ñëwee téere boobu la indi pour jàngale jikko yu rafet jàngale mbaax daldi di fa tabarakallahu sang ñu nag ci jikko yu bon yim ñu fekkee woon yépp cuub ñu ci jikko yu baax moo tax weeru weeru koor jàngalekat la alquran muy téere bi muy jàngale nga ne ma kuy jàngale faaw nga am ay taalibe foog nga am ay student yooy jàngal ma ne la wal muslimuuna talaamisuhu jullit ñi oorkat yi ñoom ñooy taalibe yi nga xam ne ñoom la ramadan ñëw pour jàngal kon wax naa la ticca bi jàngalekat bi wax naa la téere bi muy sukkandiku di ci joxe lesin wax naa la ñan ñooy taalibeem yi mooy jullit ñi ñi jébbal seen bopp yàlla di oor weeru koor ñooñu ñooy taalibe yi weeru koor di jàngal mbaax moo tax bu ñëwee foos lesinam darsum bu njëkk nga xam ni mooy lessinam bu njëkk bi muy njëkk a jàngal wéy or yi ci biir koor gi lesin bi ci njëkk mooy darsu taqwa lesinu ragal yàlla faxe ba fàttali yàlla mi ñu bind léegi ci nan la la koy fàttalee mooy mu tere la li nga xam ne dafa dagan te te yàlla may la ko tem dagan mu seet ndax dina la ko mun a aaye ay waxtuum ndéet lekk dafa dagan naan dafa dagan sëy dafa dagan te yooyu yëpp mu ngi ci biir kër gi ak yow mu ne sa borom ne wooral fii ci yaram bi yëpp noonu laa bëgg ñu wooree na bët bi oor bu mu xool lu na nopp bi oor bu mu lu bon wooral la làmmiñ bi bul fen bul jëw bul jaxase bul rambaaj wooral la tànk yi bul doxati benn tànku caay-caay wooralal loxo bi bul lorati kenn ci bindee fi yàlla yi mu yar la ci loolu suba ba ngoon jot ndaw si di la romb nga di ko romb ku ci ne nopp sa morom bay xaw a dee te kenn ñi mu talaal sa morom lu tax mooy am na ku ngeen di bàyyi xel mooy ki tànt asamaan si mu tëx daanu kooku ngeen suuraale ci seen xel mi ba ku ne di moytu sa morom te ku ne sa morom lew na la lekk gu neex mu ci biir frige bi naan yu neex mu ngi fa yu bakkane nga bëgg ko waaye ñimewuloo lekk ñimewuloo naan lu tax ñimewoo koo def mooy am na koy bàyyi xel moo di yàlla ñeent léegoo léeg mu téye la ci ñaar fukki euh, ñetti fukki fan boo xëyee fi fajar xare ba fi jant bi so doo ñemee lekk doo ñemee naan mu ne la léegi koos bi jeex na training bi léegi jeex na ndegam li la lew dagan la loolu nga am ngor ba mën ci téye sa bopp doo ko laal kon léegi gëm naa ni boo gisatee yëfi jàmbur yow moomut sa xel du xelaat nga di ko war a laal ndax li la lew nga moom ko sax ragal nga yàlla ba suur ko kon yëfi jàmbur gëm naa ni dootoo ko laal te moomoo moo ñëw pour jàngal ko jaam bi bëgg ragal yàlla sax ci moom dàkk ba bu ci koor gi génn ci ak ragal yàlla ñemewu ko de gars yi dañuy wax rek naan diw dafa ñemeñ yàlla mooy tax muy def nangam ak waaye yàlla kenn ñemewu ko dañ koy jéem a ñemeñ ñemeñ lu waa yàlla ko xam kattanam ak man-manam ak li muy def hmm. ku loolu doo ko ñime wallahi doo ko ñime hmm? yow koo xam ne boo demoon lopitaan ñu test sa yaram bi nala danga da amee high blood pressure walla danga ame amee diabetes nga tiit ba foog ne ndax dee nga ngir ragal kon kooku bu ñëwalee boppam foo jëm foo jëm kon lesinam bu njëkk moo tax bi mu ne kutiba alaykum siyaamu kama kut yal nañu yàlla dimbale bañ bañ bokk ci jaam ñi nga xam ne danañ génnaale ak ragal yàlla ci biir koor gii nga xam ne mooy weeru koor mhm. ndax boo ci xasee am ragal yàlla ragal yàlla boobu mooy police bi nga xam ne mooy laxab sa bakkan bi xam nga fas dañ koy defal laab ci biir gémmiñ bi lu tax ñu di ko laab mooy dafa bari doole moom fas laab googu nag boo ko dugalee ci gémmiñ bi dang koy utal buum nag nekk ca gannaawam walla yéeg ci kawam nag mu des nag ci yow foo bëgg fas wi jublu rekk boo xëccee laab bi bopp bi day wàññeeku jublu foofu te fi bopp bi jublu fi la jëmm ji di jublu jëmm ji moo gën a rëy bopp bi waaye bopp bi mooy doxal jëmm ragal yàlla nag mooy laab gi nga xam ne mooy moom la laabee bakkanu doom aadama ba bu bëggee màmm bu bëggee màmm màmm mooy fiñ ko fiñ ko wax mu yem su ko bëggee romb mel ni moto bu amul bërëg laxab boobu ngay xëcci mooy birig bi nga xam ne mooy taxawal fas wi waaye ragal yàlla it mooy bërëg bi nga xam ne mooy taxawal bakkan bi su bakkan bi demee ba bëgg a bëgg a romb fi ko yàlla yem loo woon mu romb ko dem ci lu xaraam ragal yàlla googu moo koy delloo si waat na ko bàyyil xel na jullit nga de te jullit du def lii su demee ba bàyyi ay jabaram bëgg raasaatu ji jabari jàmbur yi ragal yàlla boobu moo koy xëccaat delloosi ko na ko yemal ci say soxna fi nga jëm baaxu kon ragal yàlla mooy laab gi nga xam ni moom la jaam bi di laabee bakkanam bi pour di ko xëcc bu demee ba bëgg a màmm wax lu ëpp wala mu def lu neexul yàlla ragal yàlla boobu moo koy delloo si waat moo koy delloo si moo tax nit bu amul ragal yàlla lu ñëw këf ko yóbbu waaye boo amee ngëm ba pare ragal yàlla lu ñëw fi la lay bàyyi bu jigéen ñi seytaan ñëwee dana la fi ba bu alal ñëwee dana la fi ba bu àdduna ñëwee dana la fi ba lu tax mooy ragal yàlla gi moo lay téye ba dara du la mën a yëngal moo tax yal nañ yàlla may taqwa waaw loolu mooy def ci nit ki mu yëg ne fu mu nekk mu ngi boromam loolu mooy def ci nit ki mu yëg ne fu nekk ci lu mun di ne yàllaa fa ak moom mm qul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduuhu yalamuhu llah wa yalamu ma fi samawati wa ma fi l ardi wallahu ala kulli cheyin qadir ci la jàmm bi di demee ba xam ne fu mu nekk yàlla nga fa ak moom moo tax ci loolu lay dem ba bu buy dem bay war a wax day wax jàmm day wax lu baax ndax day xam ne li muy wax ci suuf ak li mu wax ci kaw yépp a yem ca yàlla yàlla dafa xam ba xam li nekk ci xol yi te waxaguñu ko wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi saati sudur yàlla nee na ñaar yépp a yem ci man su leen neexee wax ci suuf yootlanti ci suuf di teg seen diil di nas seen lu bon bu leen neexee wax ca kaw ñépp dégg leen waaye dama leen bëgg a xamal ne man yàlla wax ci suuf ak wax ci kaw ñaar yépp a yem ci man waxuma li ngeen wax ci kaw waxuma li ngeen wax ci suuf waaye li nekk ci seen xol yi ci ay bëgg-bëgg ay yéene yu rafet ak yéene yu bon te waxagu leen ko sax kenn yàlla nee na loola sax xam naa ko allahu wa asiru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi saati sudur yàlla nee na waxuma li ngeen wax waaye li ngeen wax agut mu ne ci seen xol yi stress leen nekk seen bëgg-bëgg wala nekk seen naqar loolu nekk ci biir xol bi te làmmiñ bi tuddagu ko waxtaana lu guloo ko ak kenn yàlla nee na loola sax xam naa lépp dara réeruma ca allahu akbar xam naa lépp mu tax ku mel noonu booy jëflanteeg moom danga war a bàyyi sa xel te li ci gën a doy waar nag nee na wa inna aleykum la xaafisin kiraman katibin na ngeen yëg ne kenn ku ne utal naa ko ñaari police ñaari bodyguard yoo xam ne ñoo koy toppal subaat ngoon guddeeg bëccëg xam nga yàlla bula la boolewutoon ak ñaari malaayika sax moom kenn kese doyoon na waaye mu di la gis loolu doyut boo tukkee ñu tukki boo nooraanee ñu nooraani nga nawetaani ñu nawetaani nga dem baay dee ñu dem baay dee nga def nga dem nay duty ñu dem night duty nga dem morning ñu dem morning nga dem afternoon ñu dem afternoon ñook yow foo taxaw ñu taxaw fa ñaari malaayika yooyu ñoo la topp di la sàmm yàlla ne bàyyil sa xel sóoraale ma man yàlla yëgal ne kàddu gu génn ci sa làmmiñ bu rafete ak bu ñaawee buy génn malaaka yi capté nañ ko bind nañ ko dugal nañ ko ci computer bi séef nañ ko maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yàlla ne ne yow yow bi bàyyi ma xel maa la booleeg ñoo xam ne kaddu bu génn ci sa làmmiñ lu mën a doon lu baax la walla kaddu gu ñaaw la gu bon buy génn ñaari malaaka ñoo koy capté ñoo koy aw kii bind lu baax moo la féetee ndeyjoor kii bind lu bon moo la féetee càmmoñ kii bi kii bind lu baax moom lañ tuddee raqib kii bind sa lu bon nga xam ne sa lu bon li rek la topp di ko récolte mu ngi la féetee càmmuñ moo tudd atiid waaye raqib mii nag moo yilif atiid yàlla nee na raqib yow mi féetee suma jàmbi ndey joor lu baax lu mu def benn bu baax bu mu def gaawal nga bindal ko ko fukki fukk yu baax nga dencal ko ko bu yéenee lu baax sax ci xol bi bëgg koo def te wërsëgam matewu ko walla doole matewu ko gannaaw yéene na ko rek bindal ne def na ko yàlla day fay jaam bi ba di ko fay waxuma ci jëf waaye ci yéene ju baax rek yéene yéene jar yi rafetal yéene jar yi rafetal ndax yàlla danay fay jaam bi ba di ko fay ci yéene ju rafet yonent bi nee na inna fi lmadina aqwaamun maa qataxu waadiyan madina gii ñu naa mu ne am na ay nit ñu fi ne ñoo xam ne yéeguñu doj dugguñ ci benn kur dig jamut leen bant jamut leen jaasi duggul ci seen yaram xeej duggul ci seen yaram waaye na ngeen yëg ne fii lañ toog ñoom Madina biir Madina demuñ fen waaye tiyaabo ji ngeen am ci xare bi yéen ak ñoom a ko séddoo fifty fifty li leen yàlla bindal ci tiyaabo lu tol noonu la leen bindal ci tiyaabo te ñoom demuñ fenn sahaaba yi na ko yaa rasulallah ñun nan la ñuy demee xare ñenn ñi yóbbu ñaari loxo indi benn loxo ñi yóbbu ñaari tànk indi benn tànk ñii dem indi wuñ bakkan ñii ñàkk fa seen taaw ak seen caat yi ñii ñàkk fa seen alal ñii ñu jam leen ñu tëdd te tiyaabu ji ñu yàlla fay ci xare bi def ñu ko séddaleeg ñoom fifty fifty yaa rasulullah wax ñu ñooñu lu leen war a mën a may loolu toog ci ker gi yem ak ki nekk ci naaj bi pay yonent bi ne leen boo gisee ñoom demuñ fenn waaye yàlla sédd leen fay leen lu tol ni lim fay ñi dem xare boo gisee yàlla def loolu mu boole leen tiyaabo ji mooy dañoo façon yéene pour dem comme yéen ni ngeen amee woon yéene pour dem ñoom it noonu lañ ame woon yéene pour dem ca ba waaye xabasahumul usru ngant moo leen gaar moo leen tënk ñii dañoo feebar ñii ame nit ñu feebar looloo leen teree dem waaye amoon nañ yéene pour dem comme yéen ni ngeen amee yéene pour dem yéene jooju ñu amoon nag pour dem ci xare bi comme yéen ni ngeen demee siggil islaam yéene ju rafet jooju ñu amoon ci la yàlla sukkandiku ba fay leen lu toll ni lim leen fay yéen ñoom it yéene woon na ñoo dem waaye ñenn ñi dañoo xëy feebar ñenn ñi ñu xëy seen way yi feebar mënuñ leen a bàyyi gannaaw looloo leen tere dem kon seen jëmm yi demut waaye seen xol yi dem na Seyduna Muhammad ne yéene ju rafet jooju ñu amoon ci bëgg a dem ngant dab leen ci lool ci loolu la yàlla sukkandiku ba fay leen ñoom it lu toll ni liñ leen fay yéen kon loo yéeneeti man maag yow lu ñuy yéeneeti na doon lu rafet lu ñuy yéeneeti nit na doon lu baax yéene dafa am solo de intention li nga fas ci sa xol bi góorgóorlul waxtu wu ne del fas ci sa xol lu baax del bëggal nit ñi lu baax di leen yéene lu baax te yàlla tax wax naa ne saay boo yéenee nit ñi lu baax ñépp duñ mën a am lu baax waaye yow fokk nga am lu baax yow boo yéenee ñépp jàmm ñépp duñ mën a am jàmm waaye yow fokk nga am jàmm yow mhm. yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam isal taqal muslimaani alqaatilu walmaqtuul kilahuma fi nnaar aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam wan la ne dafa am solo ndax ci yéene la yàlla di dëggaat ba nangu jëf ci yéene la yàlla di sukkandiku ba nangul la sa jëf ji bu nit ñi doon woor nga xëy di woor rek lekkuloo naanuloo waaye éenewuloo koor gi ne yàllaa tax nga di ko def bu fay jotee doo am dara ca yàlla doo fayeku xam nga yéene nu mel ci jëf mu ngi mel ni kii yéreem xar yére bi dafa xar mu bëgg koo ñaw mu ut pour ba pare ut wëñ jël wëñ gi nas ci pursa bi fas yéene pour ñaw xar-xar boobu xotteeku xotteeku boobu moom la bëgg a ñaw wëñ bi cat bi nga takk ko ci suuf daldi ñaw nag boo ko takkee ci suuf ñaw bu ñaw bi àggee boo xëccee lépp day jàpp day dëgër mu ne waaye boo nasee wëñ gi ci pursa bi te takkuloo taatu poursa bi fasuloo ko boo ñawee ba pare ba foog ne yaa ci ne boo xëccee buum bi rek mu génnaat ci sér bi ba jeex tàkk dara du fa des lu tax mooy takkuloo woon taatu wëñ bi noonu la jaamu yàlla mel bu fekkee ne iine amu ca boo jàppee fasuloo iine baaxut nga tiim iine wuloo baaxut nga sangu set iine baaxut nga julli éenewuloo baaxut nga woor éenewuloo baaxut nga aj màkk éenewuloo baaxut kon looy def intention mënu cee ñàkk yéene kon yéene ci la yàlla di diggaat ba nangu jëf waaw moo tax mu ne man amila salihan min sakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuxyiyannahu xayatan tayiba wala najisiyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaloon kon jëf soo bëggee yàlla fay la foog yéene lal ko ngëm yàlla ko gunge ko mooy tax yàlla nangu yenen yonent bi nee na jullit ñaari jullit buñ dajee ci mbedd mi kii génn këram yore jaasi kii génn këram yore jaasi ñu tasee ci mbedd mi ne rénkum xeex mu am ku dee bàyyil sa xel de ñaari jullit ñoo jotee ku ci ne mer ñu dajee pour xeex kii génnee ngànnaay kii génnee ngànnaay ñu dajee ñoom ñaar songoo xeex mu am ku dee am na ku rey morom ma ci biir xeex bi sayduna muhammad nee na ki rey moromam safara la jëm kiñ rey mu tëdd ci suufit safara la jëm allahu ki rey day dem safara hmm. kiñ mu dee ne laaj ci nekk niw yonent bi nee na kooku tam safara la jëm ñoom ñaar dem safara ki rey ak kiñ rey ñoom ñaar ñëppay dem safara allahu akbar saxaaba yi dañoo waaru ñaar ñu daje xeex kenn ki rey yonent bi ne ñaar ñëppay dem safara kenn du ci dugg aljina ñëppay dem safara dog nañ ticket direct visa euh, direct flight tu jahannam ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi waaw xam nañ nit kañ ñaar ñuy ñaar ñuy xeex kenn ki rey moroomam xam nañ ne ki rey war naa dem safara ndax dafa rey bakkan waaye kiñ rey mu daj métitu dee ba pare dee na ba pare moom di war a safara lu tax kooku di war dee ba pare yàlla di ko dugalaat safara mu ne li tax mooy moom bu jekku woon ci xolam bi ne bu jekkoo rey looloo tax yàlla foofu lay sukkandiku moom it yóbbu ko safara ndax dañ koo rey waaye moom it bu jekk woon day rey moo tax ñoom ñaar ñëpp safara lañ jëm kon mbokk yi danañ ubbi line bi ngeen mun a bokk si ci dars bi ci two three two three two one three fii ci ay Africa TV two three two three two one three mooy nomba bi ngeen mën a bokkee incha allahu taala ci darsu bi kon yéene ngi noonu bu rafete jàmm bi mën na cee fayeeku yiw bari wu mu defut waaye bu ñaawee mun na cee fayeeku musiba bu bari bu mu defut ramadan nag bi mu ñëwee pour def ci nit ki ragal yàlla cër bi mu njëkk a songu xam ne bu ko defaree nit ki baax dafa laal tànk bi ne non tànk baax na waaye déedéet mu jël loxo bi ne déedéet jël nopp bi ne déedéet jël bët bi ne déedéet mu song xol bi ramadan xam na ne bu xasee defar xol ba xol bi baax am ragal yàlla am imaan xol bi mooy mita gis nga mita courant bi nga am ci sa kër bi mita bi ñu jël Alfousseyni Balde from Serekunda dellu siwaat ci fi ñu yem salaamaaleykum Alfousseyni salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. oustaz. naam. naam lan laa nuyu. bismillah ñu ngi lay déglu. allo. ok ma ne. Hmm. ah dama doon laajte comme yaa ngi wax ne ah, ñaari nit ñu seen a dee. Hmm. yaa ngi wax ne ñaari suñu xeexee kenn bu ñaari yëpp dem safara. waaw. waaw léegi dafa doon laajte comme ñaari eh, bu dee mbooloo moo attaque kenn nit. Mhm. jërëjëf li muy leerlu mooy ñaari jullit yuy xeex kenn ki keneen ki mu ni xam na ni ñoom ñaar ñëpp safara lañ jëm wala di xeex moom ba rey ko wala moom mu rey leen ah wala am mu ñum ci rey naka la yonent bi nee na sallallahu alayhi wa ki daanu ci sa kaw ngir bëgg a jël sa alal wala bëgg a jël sa bakkan ngay aar sa bopp di difen sa bopp ngir bañ sa alal boobu ñu yóbbu ko bañ ray la ci bañ ray la ci yow amoo ca problème shahid nga shahid nga kon kiñ ñëw daanu ci kawam mbooloo di ko dóor walla bëgg koo rey mën nay difen boppam ci biir bi fen ba ku ci loru ku ci dee wala nga gaañu loola moom amu ci benn bakkaar ndax wootewul xeex bi dañoo jog daanu ci kawam bëgga jël alalam walla jël bakkanam wala àgg ci jabaram muy aar boppam di fayeeku waxuñ boobu kon tabaarakallah kon ramadan nga noonu bi ñëwee ci xol la dal xol bi la njëkk ñëw xam ne mooy président lu cër yi mu xam ne bu deferoo jëmm ji yépp jàkk mu song xol nag pour faxe ragal yàlla sax ci biir xol dëkk fa am fa palaas walla moom néeg ba yëpp wax naa la ne xol bi bàyyi ko xel dafa mel ni mita courant bi nekk ci sa biir néeg ñu jël juma ba forom kóotu salaamaaleykum juma. waaleykum salaam yaa ustaz. bismillah. maa ngi lay ziar bu ci weer koor. jërëjëf. daal mu yàlla yokk yi ci waxtaan. alhamdulilah. dafa waxtaan lu may laajte ci waxtaan bi sax. ah. comme dafa am lu may laajte xam naa bokkul ci waxtaan bi sax. waa bismillah. Euh, nit ki xam ne dafa nekk ci weeru koor te am jigéen bu ñëw. seet ko comme jógee réew tugal ñëw comme masalan tubaab. jógee réew tubaab. waaw ñëw. ñëw seet si ko. seet si ko te takk ko kooku lan la atte yàlla atte ci. ko waxee. Hmm. ca yàlla. waaw nim nim ñu nim ñu ko sante bëggee ko noonu. Hmm. mooy jaam bi bu oree cëram yépp dafa war a woor. Hmm, du biir bi rek kay woor de. waaye cër yépp dañuy woor. cër yépp lay aaye bànneex yonent bi nee na képp koo xam ne danga woor te koor gi mënut a dox sa diggante wax lu ñaaw ak def lu ñaaw woor ba pare di ciisi woor ba pare nekk ak jigéen joo takkul woor ba pare ñu di la yekkal ay ndogu yoo xam ne wala naan yoo xam ne tegeew ku tegul ci dëgg ay caaxaan la nga di ko def di ko dundee ku ko def amoo koor or moom boo ko defee cër yépp ay or lu bon lépp ngay bàyyi te yàlla tax eh. su boobaa nga door am or ndegam ndaw si takkut ko eh. bi weeru koor ñëwagut sax sharia dafa xaraamal ñu toog wéet ñoom ñaar walla di raayante wala di bokk lal fekk takkuñ takkantewuñ loola dafa xaraam boo fi defee benn naafe la ñu bindal la tiyaabooy ku julli farata nga julli benn farata ñu bindal la ko tiyaabooy ku julli juróom ñaar fukki farata boo ci defee benn bakkaar noonu la bakkaar ba di gën a rëyee nag tooñ yàlla ci beneen weer moo gën a yomb nga tooñ ko ci biir Ramadan buubu moo gën a diis dégg nga ko ñu sant ko bu baax tuutiri tuutiri tuwantiri tuutiri tuutiri tuwantiri bi nee na man lam yada qawla suuri wal amala bi fa laysa lillahi xaaja fi an yadaa taamuhu wa sharaba bu fekkee sa koor gi mënut laa tere saaga mënut laa tere jëw mënut laa tere xool lu xaraam laa tere déglu musique koor gi mënut laa aaye dem ci jigéen joo takkul yonent bi nee na sa ñàkk lekk googu ak sa ñàkk naan googu nga wax ne da nga woor yàlla soxlawu ci dara amu ci soxla jëlal lépp kon nit ki bu wooree cir yépp dañuy woor salaamaaleykum <clears throat> bismillah oustaz naam maa ngi lay ziyaare jërëjëf ñu ngi lay delloo ziyaar mm, waxtaan rafet na kàddu yi macha allah jërëjëf ñu ngi fi njëriñu bu baax a baax alhamdulillah waaye dafa am correction bu ma laaj bugg waaye correction bi dafa ruslu waaye suma sëy la affect bugg affect mm-hmm. léegi xaw ma ndax mun naa koo laajte si eya bi bismillah yow la ñuy déglu waaw man nag suma jëkkër du woon jullit dafa tuub du wutoon jullit dafa tuub waaye dafa tuub nekka jullit léegi waaye dëkku taman moom mu ngi abroad man maa ngi fii waaw waaye dafa insiste comme si weeri koor bi after bu ma ndogoo hmm. mooy comme video call masturbate ndax loolu yàlla nangu na ko dama ko bañ nag waaye su ma sëy mu bugg am problème ma laajte lan la yàlla wax su ngeen dogee yéen ñaar waaw after dog waaw dafay bugg nga call ko video call wala moom mu call la video call waaw ngeen di gisante di di waxtaan di waxtaan foyee mu foyee boppam ma foyee suma problème daanu. waaw. léegi nag mu ma mere si loolu boobu taman ma ndax li ma bañ boobu yàlla nangu na ko ndax. waaw. waaw loolu laa bëggoon a xam. waaw jërëjëf dégg nañ la. <laughs> may ñu ñëw ñëw ci. jigéen ji nga xam ne fii la ne. Gambie jëkkëram nekk bitim réew wala sax jëkkër ji dafa nekk ci beneen réew wala jëkkër jaa ngi Gambie jabar ji nekk ci beneen réew ñoom ñaar ki ki nekk fii or na ki nekk fële or na dem nañ ba dog jot ñu koolante vidéo call di xoolante ñoom ñaar di waxtaan mbiri mbugéel loola dara newu ci dagan gannaaw bu ngeen dogee tagan na ngeen koolante vidéo call waxtaan mbugeel seen diggante gisante yéen ñaar ku ci ne bég dagan na li tàmbale fi nga dogee ba fi fajar xare ngay wara a tàmbaliwaat kooru beneen bis ba dagan na islam nag limuy bañ mooy mu kallaf buy fooyee boppam fooyee sa boppu moom ba daanu am satisfaction daganut ci góor daganut ci jigéen fooyee sa bopp dafa xaraam daganut waaye di call bi moom gisante leen sa sa jëkkër la jabaram nga lu ne xaj na seen diggante waaw waaw te dagan na de faxe leen bu bu ko def ci bëccëgu koor gi rek waaye guddi gi moom lépp dagan na seen diggante waaw jërëjëf kon benn tey two three two three two one three wax naa la ne xol bi mooy mita bi xam nga mita bi nekk ci sa biir néeg ñu jël Moodu Baaji forom kootu Moodu salaamualeykum Moodu. salaamualeykum. waaleykum salaam Baaji. oustaz laa bëggoon a waxal. ay wax ak yow Baaji. oustaz ah, ñun ah, suñu waa dafa seeyaa tubaab. waaw. Ah, tubaab bi mu ngi fii nii ci koor tubaab góor la wala jigéen la. góor góori jullit la seya tubaab. góori jullit la mu takk jigéen jox. ah dafa ñëw si wéere koor gi. Hmm. léegi. Modou. naam. waa léegi mu takk tubaab bi. ah tubaab bi dafa ñëw fii si weeri koor gi pour ah seet si ko si biir weeri koor bi wante dañ dañ sëy si islam. waaw. am xaw ma lan amul benn problème su ko neexee sax na ñëw togg si ndogu na ñëw togg si ndogu dem na ñëw pour sëy si sëy bi dara newu ci jabaram la waaye nag na xam ne jëkkëram jullit la dafa oor te ku oor diggante bi mu ooree ba fi muy dogee du laalante jigéen du tëdd ak jigéen du am ak jigéen benn bànneex du lekk du naan lépp luy dog koor na xam ne jëkkëram daf ko war a moytu moom it diir boobu période boobu yépp na moytoo def luy yàq kooru jëkkëram ji buñ demee nag ba dog jot jëkkëram dog ooram li tàmbale fiñ dogee ba fajar lu leen neex def dégg nga ko. jërëjëf mu ngoog lu ko neex lu leen neex def bu jëkkëram dogee daal nañ songoo nañ xalangu nañ bëree nañ def lu leen neex dagan na waaw kon two three two three two one three xam naa li ñu dese ci waxtu yi bareetut waaye ñu jël beneen koola incha allahu taala two tuwantiri ñu ngi ànd ak yéen ci seen programme mu diine ji wax naa la ne xol dafa mel ni mita ci biir kër mita bi bu amee problème wala mu fuus wala mu am problème lamp boo taal doo gis courant socket boo dem du am courant fan yi du dox yaako yi du dox télé yi du dox dara du dox waaye mita bi bu baaxee ah boo taalee lamp bi lamp bi doxul da ngay xam ne ci lamp bi la nga ceeñ ko ñu jël njaay Ndiaye salaamaaleykum Mouhamed Mouhamed ñu jéggalu ci Mouhamed Ndiaye fa tabarakallah two three two three two one three fa tabarakallahu ñu jëlaat keneen ci line bi ñu fàttali leen ni yéen a ngi ànd ak ñun ak seen programme diine ji fii ci ay Africa TV fa tabarakallahu di TV bi xew nag ci jamono loolu la yàlla dogal fa tabarakallahu yal na yàlla dimbale Mohamed lamin fa tabarakallahu dimbale ñoom moot ñang ak fa tabaarakallaahu ñoom xadi gars yi contrôle room beeg staff bi yëpp liggéeykat yeeg ba ci drive yi balekat yi yal na yàlla bokk dimbale ñépp ba fi ñu bëgg a àgg yàlla yóbbu ñu fo kawe foofu fu gën a foofu tabaarakallah gërëm suma mbokki ustaas yi fii yi fii jaar yépp ci ëttu kër gi di bëggee ñépp di ñaanal ñépp waaye di sant ñëpp ci njàngale mu rafet mi yal na yàlla fayal ñu leen waaye sant mbokki déglukat yi waaye rawatina fii nag tabaarakallahu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaanal ñëpp jàmm waaye di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla mi am jàmm te di ko joxe yal nañ yàlla boole defal jàmm ñu ñëw ñu jël soxna Awa suñ laas koo la ci jotaay bi salaamualeykum Awa. maaleykum salaam yaa nga def. jaam alhamdulilah. man de benn laajte laa bëggoon na laajte. buur. da nga waaw. waaw. so mu jaaxal ma lool na. Hmm. waaw gént buur baax na. ok gént buur gént ministre gént borom uniforme loolu baax na soo géntee buur walla gént lu mel ni minista walla lu mel ni directeur ambassade yi le gént leen loolu soo nekkoon ci nguur di liggéey ci ron nguur ñu ne du yàgg dara nga am promotion di nga am yokkute kon gént yu mel noon lu baax la moo gént jumaa gént jàkka gërëm lii la ñu waxtu yi cërale woon ak yéen ñu sant soxna Xadijatu control room ak mbokk yi mu fa nekkal yépp ci liggéey bu rafet bi jaajëfal leen ci ànd bi ngeen ànd nag ñun jox jox leen dig daje incha allahu taala ba beneen ajjuma wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu